mu am kontaante bu baax mbégte ci agsi li ci gën a am solo moo di ci juróom fukki at yu manqué ñaari at ñëw naa fi kon ñeen fukki at ak juróom-ñett fii ci Touba manqué wu ma ko gën a màggal ñaari màggal yi ma ko manqué benn bi moo di dama amee tawatu tànk bi ci ñaar bi ko ñaareel moo di dama jóg ba jëm si fii xalifa bi may def guddi màggalam ëllëg nelaw ci guddi gi mënatuma agsi yooyu ñaar laa manqué fii ci Touba sama diir diirab juróom fukki kon xam naa fi dara ci li ma fi war a xam nu ngi am mbégte nag ci dëkk bu tedd bi nga xam ne xaadimul Moustapha yàlla dafa dogale léppam ak léppi dëkk bi ak léppi jullit ci moom ba mu bind ne farxanil baax bila aw jaalin wala masaxatin wala ahjaalin ne man xaadim yàlla bégal na ma ci lu dul muy wëndaalu ji wala ma am coono wala ma am gàcce ba li ma yàlla jox nga xam ni lépp ci sama loxo la ko teg képp ku mu neexul day di am ko béral ku dul ku dul man loolu la bind ne adama sul qudrati wal iraada bina adowin lam yanal muraada ne mabba na borom doole ji di yàlla kay borom na meel sama tabaxi noonu lam yenal duñu am mukk muraad lañu bëgg ci man kon nun danoo bokk ci ñi nga xam ne li ko yàlla defal nangu nanu ko bu baax a baax a baax amuñu ci benn sikki sàkk li ci gën a am solo nag yaa man la day kenn yéeti waxali wa amali sakkaytu doona jawli dafa waxoon ni man lastu ajoolu liltimaasi maarifa naakirtatun kuntu wa sirtu maarifa dafa wax ni man duma kuy wëndaalu wala ñu dima publicité wala may bind lettre fenn waaye fii ngeen doon xëy ba sama mbir fi laay toog ba mel fi ne jant ba ñëpp xam ne maay xaadim rasul loolu defe naa ne wér na mu ne bu boobaa nag wala yaqutta fawqa suhri wal muna wa fuqta ala arafatin wa minaa mu ne bu boobaa nag danaa fexe ba yàlla mi nga xam ni lu ma mébatoon ak lu ma bëggoon jox na ma ko baraw la ma mébatoon ak lu ma bëggoon ba yéen kawe ngeen ñooñ arafa ak minaan loolu doy na ci yóbbal bu ñu nu yóbbal la ca des nag di li fi nekk muy kéemaan di coow di wax muy lu mu doon loolu ni ko xaadimu rasul binde dafa nekk lu doy kéemaan yajuudu li yajuudu li jawaada maa laa yen fa wa kullu maxluqin siwaay yen fadu nee na ku tabe ki tabeel na ma ba ma lu jeex ku dul mën nag di nga jeex la waaye man xaadim sama dara du jeex xanaa suñ ko waxee mu lii danañ ko dégg ndax fu fi waay nekk bu doon benn butéel nga fa teg danañ la fa song bu doon benn bant danañ la fa song boo fa doon kenn di nga doon dem ba dem fa mbooloo mu doy sëkk kon yaa sunu borom mi nga xam ne mooy joxekat bi moo ko jox loolu jarul la am benn sikki sàkk ne euh, xaadimu rasul li ko yàlla may moom dong la ko may mu yore ko fa tabaarakallaahu la ca des moo di xaadim kii nga xam ne moo fi nekk ndax kat bu leen di fàtte ni ku fi toog da ngeen di bàyyiw turam ne Serigne Touba. kon nag ngeen xam ni dégare ba nga xam ni suñu borom moo ko nëbboon jox ko rasulillahi mu tekk ci loxoom kon ku ko fi nekkal dégare boobu dafa la koy jox ngir kii fi nekk tey di suñu kilifa Abdul Ahad la tuddoon moo siiwoon waaye fii mu toll Serigne Touba si Abdul Ahad lañ koy wax loolu nag moo lay xamal ni kon la ne woon ca ku mag moo nekk ci moom mu def fi nag mbir moo xam ni li nu fekkee li mu fi def moom si Abdul lu am solo la ngir sëriñ Tuubaa li mu jëkkoon ittewoo fii ba bind ko ne abdi iddaamata ma tuibu wa tartadi fi maskani Tuubaa lati la ka tanzalu dafa waxoon ni yàlla na nga ma may ma saxoog loo la nga xam ne sopp nga ko te gërëm ko ci sama dëkk bii nang ma ko yow yàlla xaadim moo ko ñaanoon boromam ne nang ma may loo soppa yow yàlla te gërëma ko ci sama dëkk bi nga xam ne dañ koy woy Tuubaa lati Tuubaa gi nga xam ne làkka ñeel na ci yow yàlla mën si lu wàccuwaay et kon bu Cheikh Abdoulaye ñëwee balewaat dëkk bi defaraat ka am yi lu mu fi dindi ci lu ne kon am na solo lool ci wax waxi baayam ji mu waxoon yàlla moom taxaw na ca tem mu des nag loo xam ni xëy na sax boroom xam-xam yi déewu nañu ko waaye man nag damaa bokk ci nga xam dañuy def baasu surtout suma baasu nag dafa bari ci këni Serigne Touba dama ci lëñtu lëñtu gu am solo ba dama ciy gis yoo xam ni lu am solo la lu ñu fi mënoon a wax lenn day moo gën a rëy lii ma leen di bëgg a wax mooy bi xaadim nelawee ci njaareem ñu indi ko fii tiisiyaa gi yépp ak dëkk bi tur waaye nag yokkaat gi yokk gi yokk gi fi Cheikh Abdoulaye di def da doon lu làqu doomu aadama di sëñ Tuubaa doon ko lu yàgg waaye ndekk dafa am ku mu ko dencal ci ni ma la waxe ni ku tudd ku fi toog tudd turam sekkare bu ko neex mu dox la rek yokk gi mu yokk dëkk bi di ko yokk jumaa gi خادم وخون نكا دفا وخون ني يقود لي كيف يكون ما خيب عن الوراء أرادي أنو من التقيت دفا وخون ني يقود لي كن فيكون ما يخيب عن الوراء وأحرادي أنه تقيب دفا وخون ني ومالتال نما بروم فيكون ما يخيب فرد نيك من وأحرادي سمو خيمم تيف من خادم أنو تي نيوم تخيب فرد نلين xemam téefam yooyu nag fondamam ba mu junjoon am ñu ca commencé woon mu teer am ñu ko jéexal yokk gi nag moo war a doon kéemtaan gu lan moo tax ah, Cheikh Abdoulaye Sëriñ Touba toog ba yàgg mu ne day yokkaat jumaa ji lu am solo la ci ñu xàmmee ni li ma leen wax ni ku fi toog mu tuddee la aw turam sekkare bu ko neex mu jox la dafa doy nag ci loolu moom bi muy jóg di ñëw fii an kartihaali wa artihaali raadiyan la wax wa ilayka qasdiya raadiyan laka harhad moom bi mu fii jóg di jóg di jóg di jëm si conan bi daf ko wax ni irtiali anka wa intixaali anka laxas naa jëm ci yow toxu naa it jëm ci yow man xaadim wa ilayka qasdiya raadiyan laka ar alu sama mébét ak sama soxla lépp nag wékk naa la loolu nag moo tax dafa dema a dem a dem ba yonante bi ci ni mu bindee jéexlu ba ànd ak moom ne yàlla kii kat li ma yoroon jox naa ko bu mu jeex tibbal jox ko loolu moo wax Sëriñ Tuubaa mbiram dafay yokk waxuma weer wu ne waxuma at mu ne bis bu ne mbiram day yokk ci ku neex ak ku mu neexul ak ku bëgg ak ku am dara lu ne ci mbiram bis bu nekk dana yokk ci ay su ay su saa waxtu wu nekk waxuma nag weer waxuma at ba day waral kon bis bii nga xam ni moom la ñu tuddee màggal waxoon naa fi daaw jéeg ne ba ñu ma laajee na ma loo ci xam dama ni màggal gi day mbubam liir la sa doom nag bu deeb liir nga xuttil ko benn mètre ren déwén nga xuttilaat ko benn mètre du ko jot màggal gi moom at mu ne dafa yokk mbubam liir la at mu ne def yokk kon Cheikh Abdoulaye nu ngi ñaan sunu borom mii téye mu téyel nu ko ngir noonu xam nañu li mu fi jariñ yàlla mi nga xamee ni mooy joxe wér mu joxal nanu joxal nu ko ka ngir xam na nu li mu fi jëriñ yàlla mi nga xam ni moo fi yàggal ab jaamam ci na mu ko soobee mu yàggaloon na ko fi ngir nun xam na nanu li mu fi jëriñ euh, te dëppale mbooloo mi ci ndigalam yàlla na nu yàlla defal loolu te tofal na ci ginnaawam bi jaay rasulillahi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallam degere boobu daf la koy jox ngir kii fi nekk tey di sunu kilifa Abdul Ahad lu tuddoon moo siiwoon waaye fii mu toll Serigne Touba Cheikh Abdoulaye lañ koy wax loolu nag moo lay xamal ni kon la newoon ca ku mag moo nekk ci moom mu def fi nag mbir moo xam ni li nu fekkee li mu fi def moom si Abdoulaye lu am solo la ngir sëriñ Touba li mu jëkkoon ittewoo fii ba bind ko ne abdi idaamata ma tuibu wa tartadi fi maskani Touba lati laka tanzalu dafa waxoon ni yàlla nanga ma may ma saxoog la nga xam ne soppa nga ko te gërëm ko ci sama dëkk bii nang ma ko may yow yàlla xaadim moo ko ñaanoon boromam ne nang ma may loo soppa yow yàlla te gërëm ko ci sama dëkk bi nga xam ne dañ koy woy Touba lati tuubaa gi nga xam ne lakka ñeel na ci yow yàlla mën si lu wàccuwaay et kon bu Cheikh Abdoulaye ñëwee balewaat dëkk bi defaraat ka am yi lu mu fi dindi ci lu ne kon am na solo lool ci wax waxi baayam ji mu waxoon yàlla moom taxaw na ca tem mu des nag loo xam ni xëy na sax boroom xam-xam yi déewu nañ ko waaye man nag damaa bokk ci xam dañuy def baasu surtout suma baasu nag dafa bari ci këri Serigne Touba dama ci lëñtu lëñtu gu am solo ba dama ci gis yoo xam ni lu am solo la lu ñu fi mënoon a wax lenn day moo gën a rëy lii ma leen di bëgg a wax mooy bi xaadim nelawee ci njaareem ñu indi ko fii tiisiyaag gi yépp ak dëkk bi tur waaye nag yokkaat gi yokk gi yokk gii fi Cheikh Abdoulaye di def da doon lu làqu doomu aadama sëñ Tuubaa doon ko lu yàgg waaye ndeke dafa am ku mu ko dencal ci ni ma la waxee ni ku tudd ku fi toog tudd turam sekkere bu ko neex mu dox la rek yokk gi mu yokk dëkk bi di ko yokk jumaa ji xaadim waxoon na ko dafa waxoon ni yaquudu li kun fa yakunu ma xiib anil wara ah, ah, ah, araadi anu minu taqiit dafa wax ni yaquudu lii kun fa yakunu maa yaxib anil wara wa axraadi anhu taxib dafa wax ni wammaltal na ma boroom kun fa yakun maa yaxib lu faddu nit mu ne wa axraadi suma xim xim sama xim am kontaante bu baax mbégte ci agsi li ci gën a am solo moo ci juróom fukki at yu manqué ñaari at ñëw naa fi kon ñeen fukki at ak juróom-ñett fii ci Touba manqué wu ma ko genn màggal ñaari màggal yi ma ko manqué benn bi moo di dama amee tawatu tànk bi ci ñaa bi ko ñaareel moo di dama jóg ba jëm si fi, xalifa bi may defi guddi màggalam ëllëg nelaw ci guddi gi mënatuma si yooyu ñaar laa manqué fii ci Touba ci sama diir diirab juróom fi at kon xam naa fi dara ci li fi war a xam nu ngi am mbégte nag ci dëkk bu tedd bi nga xam ne xaadimul Moustapha yàlla dafa dogale léppam ak lépp dëkk bi ak lépp jullit ci moom ba mu bind ne farxanil baaxi bi laa aw jaalin wala masaxatin wala ahjaalin ne man xaadim yàlla bégal na ma ci lu dul mu wëndaalu ji wala ma am coono wala ma am gàcce ba li ma yàlla arafa ak mi naan loolu doy na ci yóbbal bu ñu nu yóbbal la ca des nag di li fi nekk muy kéemaan di coow di wax muy lu mu doon loolu ni ko xaadimu rasul bindee dafa nekk lu doy kéemaan yajuudu li yajuudu li jawaada maa laa yen fadu wa kullu maxluqin siwaay yen fadu nee na ku tabe ki tabeel na ma ba jox ma lu jeex ku dul mën nag di nga jeex la waaye man xaadim sama dara du jeex xanaa suñ ko waxee mu di danañ ko dégg ndax fu fi waay nekk bu doon benn butéel nga fa teg danañ la fa song bu doon benn bant danañ la fa song boo fa doon kenn di nga doon dem ba dem fa mbooloo mu doy sëkk kon yaa sunu borom bi nga xam ne mooy joxekat bi moo ko jox loolu jarul la am benn sikki sàkk ne euh, xaadimu rasul li ko yàlla may moom dong la ko may mu yore ko fa tabaarakallaahu la ca des moo di xaadim kii nga xam ne moo fi nekk ndax kat bu leen di fàtte ni ku fi toog da ngeen di bàyyiw turam ne Sëriñ Tuubaa kon nag ngeen xam ni décret ba nga xam ni sunu borom moo ko nëbboon jox ko rasulillahi mu tekk ci loxoom kon ku ko fi nekk jox nga xam ni lépp ci sama loxo la ko teg képp ku mu neexul day di nga am ko biral ku dul ku dul man loolu la bind aadama adama sul xudrati wal iraada bina adowin lam yenal muraada ne na boroom doole ji di yàlla kay boroom na meel sama tabaxi noonu lam yenal du ñu am mukk muraad la bëgg ci man nun danoo bokk ci ñi nga xam ne li ko yàlla defal nangu nanu ko bu baax a baax a baax amuñu ci benn sikki sàkk li ci gën a am solo nag yaa man la day kenn niyati wa xali wa amali sakkaytu doona jawli dafa waxoon ni man lastu ajoolu liltimaasi maarifa naakiratan kuntu wa sirtu maarifa dafa wax ni man duma kuy wëndaalu wala ñu dima publicité wala muy bindi lettre fenn waaye fii ngeen doon xëy ba sama mbir fi laay toog ba mel fi ne jant ba ñëpp xam ne maay xaadim rasool loolu defe naa ni wér na من ابو بابا نقول قلت فوق السهل والمنى وفقت على عرفات ومنى من ابو بابا انا في خبي يالا ميغا خامني لوم ميبوتون اك لوم بوغون جوخنا ماكا براو لوم ميبوتون اك لوم بوغون